alors de la de euh, yooyu yëpp euh, Guèye est-ce que mesurer nga enjeu yi élection législative wu euh, novembre di am enjeu yi mu war a am moi je me dis que ba ñuy ba ñuy def élection boobu ba tey boo moytul élection 17 novembre yi mooy nekk élection yi gën a am solo ci doxalinu politique u Sénégal mhm. moom laa loo sànq aujourd'hui le peuple n'a pas le droit de se contredire mhm. su fekkee ne dañu bëgg ñu changer dundingu Sénégalais yi tey jii la mu defoon day delloowaat buum ca mbooy mbooy ga rek c'est mënoon naa comprendre sax ñuy xalaat mu xaw a metti bu fekkee ne on avait une am opposition boo xam ne vraiment euh, opposition dafa am la tête sur les épaules mais on a une opposition de ay gaminerie la ñuy def su suis désolé de le dire. Ah, ñoom ak ñuy teg nii dajaloo fii. mais dafa baaxul moo tax ma ne Sénégal gépp xam nañ ne ñoom ñii. dañuy naxante seen biir ñu ngay reyante beneen bi mooy dama ne dafa metti woon lool metti woon lool ba képp ku nekk Sénégal sax da ngay tiit ci réew mi àddina yëpp di ñu tiital ñëpp jaxasoo Sénégal yàlla defal ñu ci ndox mu sedd ba jàmm am ba ñu toog tey di def plateau. Mm-hmm. changer de régime. sénégalais yi ñooy choisir. Mm-hmm. ndax dañu bëgg a jàmm jooju ànd ceex koom-koom ànd feex changement. bu buñ ko bëggee. Mhm. mooy que il faut que liggéey bi di jaar yoon. il faut ñu ñii fi ne am majorité à l' assemblée c' une obligation. parce que ñii ñu am comme ay. Ah, opposants ñu noonu la ko peuple bi mais peuple bi comprendre noonu lu gën a ba fal ñi fi ne. Mhm. lii kay dafa yomb a mooy li ma la wax en mathématique prolongement par continuité la jeex na tàkk buñ bëggee changer c' est aussi simple. parce que gis ngeen déjà ñii fi nekkoon rek assemblée bi fi nekkoon taxawaayu taxawaayu opposition boobu gis ngeen ko. Mhm. buñ bëggee lu pire loolu nañu jël assemblée jox ko neneen bu boobaa Sénégal du dem du dikk. wallaay tëgg te gis nga ñoom seen i discours c'est extrêmement grave yi ñuy wax dañuy cest dañuy jéem a lamberloo xelu nit ñi di caxabal maayin sénégalais yi te tuuti nañ ci. Mhm. parce que boo toogee tey naan en six mois cinq mois. résultat condition de vie dafa war a changer xam nga ne yow sa bopp la ngay wax sa gëmoo ko. dem nañ sax bay attribuer ne primature dafa consommer douze milliards. il a fallu que nit ñi gën a rectifier gën a rectifier loolu amul gis nga gis nga donc donc sëñ wax mooy ah, mooy li ma la aujourd'hui manipulation Sénégal ñëpp d'accord nañ ne réew mi métti na réew mi métti moo tax ñu indi pour changement pour ñu liggéey réew mi mm-hmm. te pour ñu liggéey réew mi on peut compter que sur notre sénégalaisisme ñun Sénégal ñoo mën a transformer suñu réew te nag balaa ngay transformer dëgg day fekk keno yi téye réew mi nekk ci transparence nekk ci bonn gouvernance loolu je crois que liggéey bu am solo régime bi mu ngi ko ci def tey nañ leen pousse te ku nekk fa nga nekk xam na ne yow yaa mën a soppi réew mi say responsable nga assumer ko mhm. suñ la voté les budget nga liggéey ci te yàlla rek a tax au niveau de l'état même dafa war a am tey benn compétition ci ku dàq liggéey. Mhm. wax na ko sànq jeunes yu bari tey bu ñu jëlee mbëkk mi tey. ñoom la parce que politique yi ñu mës a def. depuis depuis depuis indépendance. Ah, ba tey teg agence. jël ay milliards def ko ci ñu ne ko ah, du ŋaañ. lekk de jaay géej ah nan woon di dëgg. Mhm. milliard boo lekk rek. ñaata jeune nga nga nga xañ liggéey. te li ci gën a doy waar mooy yow moo koy def ñëpp di la ko wax et cetera président bi fi ne woon day jël teg la ci wetam. protéger la saa nañu sérieux tuuti ñoom ils n'ont pas d'argument amuñu tey lu xam ne mën nañ ko wax parce que dama ne kër sax kenn mënu ko tabax ci un na mm-hmm. kër kër gu jaar yoon mm-hmm. su fekkee ne jaar na dëgg mu nekk sa propre alal ngay liggéey di ko liggéey laaj ko travailleurs yi laaj ko enseignants yi laaj ko ñi nga xam ñu ngi liggéey kër ñaataat la ñuy liggéey kër gu baax kër gu normal bu fekkee ne jëloo alal réew mi mm-hmm. koo gis mu liggéey kër en un temps record rek dafa randatal à 90 pour cent c' est ça la vérité. Bamba Samb léegi nag. ñu bëgg a sérieux tuuti waaye nee na Bougane dafa bëgg dem kaso quoi. <laughs> non non bref. non non wuyu ma wuyu <laughs> ma. aujourd'hui je vais dire une chose. dem une stratégie boo xam ne ñu ngi koy jéem a mëne. Mhm. muy ban. pour que ñii fi ne tey taar yi nga xam ne régime bi fi jógoon moom la am. Mhm. ñu dupliquer ko fi. Mhm. il faut avoir l' intelligence. avoir c'est-à-dire que être au-dessus de la mêlée. am na ñoo xam ne tey seen rêve tey mooy ñu jàpp leen pour ñu victimiser wu. pour sénégalais yi naw leen bëgg leen. pour lan ci ay waxu kasaaw kasaaw yoo xam ne li ñuy wax tegul ci yoon ñëpp xam nañ li ñuy wax ni waxi dof la. nag euh, Guèye. je dis encore une fois. attention. focus sur la transformation du pays. Mmh. on est dans une démocratie on dit que on a une grande démocratie. Ouais, je encore une fois am na détail yoo xam ne buñ ci tàddal suñu bopp waxi nit. tant que offensé woo institution yi. waxi nit ay waxi nit la. san s'en contrebalance. li am solo. mooy que ñu focus ci liggéey bi. waaw mais Guèye alors mon ami Seydou Hamilton gëjoon naa la dégg. trop ça fait plaisir de te tere aussi ñu enclencher la machine judiciaire. parce que am na pool judiciaire financier buñ buñ installé. wër ki démb. non san. waa rapport yi ma àgg rek. reddition des comptes attention attention mais danañ ci ñëw Diop. waaw xaaral ma reddition compte c'est une demande sociale gis nga Bougane. damay déglu ma ak ku mënti doon ak ku mënti doon su ko teg ci yoon de que on li may wax li ko bàyyi buñ ko laal na dem élection istu non yoon nañ ko tëj kaso fii aw kenn amul immunité non xaaral ma noo gee xaaral ma gee de non on se comprend xam a violent yooyu aujourd'hui nos institutions nga saaga maa ma àggal Guèye hmm. li ma wax c'est important xam nga saaga président de la République ku xam ne dafa démissionné ci parti bi nekk une institution di ko incarner ba mu mot sëkk. nga taxaw naan ah ab ah, ah, boo si ko bësee jaar sax mais loolu c'est du n'importe quoi. non on a un état droit gis nañu dafa am dafa am lu ñu doon xeex. ñun xam dama ne la bu dul am lu ñu doon xeex. su fekkee jaaru ci yoon. nañ ko tëj ci kaso bi te dara doo xew nag. dara déglu woo ma euh, jaaru ci dara du xew jaaru ci yoon boobu xam mooy lan. Mm-hmm. nee naa la on doit protéger nos institutions. exactement. loolu laa la wax de. exactement. mais dama ne ay waxu kasaaw kasaaw yooyu noonu. Mm-hmm. yenn wax yi. bu ñu tardel eh dañu yónni yàkkamti gaa yi mm-hmm. mënoon nag di yëg garam nag mm-hmm. chaque fois ngay wàcc di sànni xeer ku la ku la tooñ dafa am yoo xam ne ay détails la parce que euh, souvent da ngay xalaat sax ndax kii di génn kàddu yi mm-hmm. moom la c'est-à-dire des mais am na yoo xam ne kenn du ko nangu c'est-à-dire que nos institutions duñu nangu kenn di ko fragiliser exactement parce que suñuy miroir lañ suñuy image lañ ça on est parfaitement d' accord mhm. dama ne qu'on se focalise pas sur yenn yi mhm. moi je dis ah c' est des bu ñu mënee ba man individuellement am nañu ay nit na nañu woote ci stade yi yow daal li ngay bañ mooy c'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre notre temps, notre temps sur des personnes qui ne peuvent même pas avoir 1% ci élection. ay nen kay dana temps boobu. ñoo xam ne tey table boobu réuni yëpp ña participer aux élections boo ko boolee du 3% Mais on ne va pas perdre notre temps sur ces féodaux et ces néopoliticards. On a autre chose à faire. waxtaan wa dëgg sa la il faut que nit ñi aussi ñu jël seen i responsabilité lu ñu jëm tontunte nañ ko bàyyi seen boy yi. ñu tontu gars yi parce que niveau boobu la ñu nekk quoi seen ñi gën a tuuti ci yéen nañuy tontu gars yi quoi di leen gérer. mais mais mais mais gars nañu focus ci liggéey bi mais li may wax aussi Massamba. ñun dafa am benn réduction des comptes boo xam dañ ko woo Sénégal yi Sénégal yi wax ñu ko mu nekk une urgence. waaw réduction des comptes bi démb démb démb installé nañ le pôle judiciaire financier gars yi ils sont hyper riches gars yi ay milliardaires lañ gis na ñii la 17 suñu xaaree naan non suñu leen jàppee dañ naa ay règlement de compte la suñu leen jàppee dañoo bañ ñu gagné assurance bi nañ leen tëj ci kaso bi dañoo sàcc suñu xaar nañ leen tëj man euh, loolu du ma ci masa euh, euh, loolu fekkee ay Diop Taïf ay ragal sa discours bi non Guèye waxewul ko nañ leen tëj ci kaso bi te dara du xew yow déglu gis nga tey gis nga tëj ci kaso may ma agrégé ko tasaare a tëj ci kaso bi kuñ ci war jàpp nañ la jàpp ku saa suñu xaalis nañ la tëj ak koo mën doon nañ la tëj loolu c'est pas le problème c'est une demande sociale Diop képp koo xam ne tey woonan la dafa am loo xam ne rapport yi génne na ko mhm. woowu ñoo rek parce que say bët dafa lëndëm wala neexoon nit ñi déedéet képp koo xam woo woonan la def nga ay dëtu moo tax ñu teg pôle bi maintenant nag nañ ko interpréter ne accéléré ça ça ne nous concerne pas justement euh, contexte bi contexte bi ngeen ni euh, bu ñuy waajalee élection yi hmm. installé nañ euh, pôle judiciaire financier mais moment bi quand même bu ngeen ci jàppee ay nit waaw ça prête pas a benn genre yi est-ce que moralement sa peut se comprendre ñoom bi ñuy toje alalu réew mi moralement fu mu nekkoon <laughs> non c'est vrai ñu jëm ci ñu teg. élection yi ñuy jëm ni yàggul ah. ñu teg pôle pôle judiciaire financière. non pôle bi nag Macky Sall moo ko fi tegoon. waaw mais démb lañ doon installé les membres. defal ndànk rek nañu waxtaan rek. waaw c'est-à-dire que ñoom ba ñuy dóor di randatal hmm. ah période amul woon moment amul.